Salut les amis de Babo Show et de Sport TV. Merci encore Gaël de la confiance au renouvelée. Hein. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du baisser des commentaires. Un plaisir au renouvelé chaque fois, de partager des informations et box sénégalais. Fait pour les Monténéca, hein, 14 régions du Sénégal, Rokhoukhari, Gorgokhari, Ninglen de Gadiofoul, Ninek également, qui à l'hôpital et qui hérite de faire Yal, Messun Borom Fogesen Bok Niverek Gam, Ninek Tikasso, Ingen Hamni aussi, erreur judiciaire. Guillaume Nid de Foulmolin Foyobo, Sun Borom Gendelen, Fe, Delawatlet, Sénégal, Nid de Daduna, Sun Borom Khalena, Denefedo, Sigaïte, Yéhénou, en avant avance ensemble dans la magie de Babel Show et des Sport TV l'actualité en contenu actuel ñu fas yéene waxtaan Sadio Mané bi nga xam ne nag euh, mënoon na dem Chelsea mu daal di refusé Chelsea Benfica Marseille lépp daal ñu fas yéene si indi ay leeral gars yi dellu si ci cas Sadio Mané mais également Cristiano Ronaldo bi nga xam ne léegi youtubeur la lépp ñu fas wasaare ànd ci ak Yen Là, Manuel Neuer qui donc une carrière internationale après Tony Kroos après également Müller une troisième légende pour Nationalmannschaft qui donc Thomas Müller arrêté une carrière donc Allemagne perte en moins de six mois

daal moo tax daal Barça bàyyi na Joao Cancelo fas yéene ko laal duñu ko laal duñ ko taxal fi na ni Barça dafa bëgg kees gi amaat xaalis moo tax ñu ngi wàññi sax yenn joueurs yi kii nag di José Lu nga xam ne jugee na du côté du Barça dem de du côté Real jégalu dem du côté donc de l'Arabie Saoudite moom daal moo posté li ba mu gisee Bellingham sol yi mu bind Pintus pour wane ne Pintus commencé na jamono ji liggéeyam ah, mayul gars yi dara Gisgen dit ko pépite Facundo Pedestri la pépite de Manchester United y donc du côté euh, donc d'un autre club a actuellement donc un transfert c'est un transfert euh, bien évidemment hein, donc euh, hein, pour donner. doon xaaraame wuñu bu bettu ñu pour ki y donc Facundo Pedestri Ipswich également qui confirme la venue de Broza l'attaquant de Chelsea bi nga xamné ne moment ah, donc euh, concurrence bi moo Armando Broza du na fa donc dem du côté de Ipswich Town mi nga xamné ne yéeg nañ Premier League saison bini il est bien arrivé Joao Félix ngeen gis ko ni nak euh, premier entraînement avec les Blues de Chelsea dem nekkoon na fa en prêt dès le waat fa donc pour devenir un joueur maintenant euh, officiel des Blues de Chelsea momi mi ndaw daaw Barça yaakaaroon Barça lay mais finalement dal gis ngeen Chelsea lay mujjee dem mais aussi Cole Palmer moom nek joueur boo xam mo jël meilleur jeune joueur de Chelsea loolu na boo Chelsea gëjee am 2014 le woon c'était avec un certain Eden Hazard bi nga xam ne nag moo ko indi comme par hasard mom di se donne sol après Ben bi donc pour la ko sol mi 20 ans après dix ans après plutôt donc mu daal koy jël qui donc euh, le défenseur de Milan waxoon Nalinko, hein, des fois du côté de Manchester de Manchester Top mais Juventus le mujjee dem donc il signe à la Juventus de Turin pendant ce temps Savigno Gaï c'est l'ombre de Mahrez parce que de Nogis Benet Mahrez bis comme niko qui a nga xam ne donc dembaba Nanda doon ah, Manchester City kañ fa Mahrez Savigno qui le joueur recruté par dit Pep Guardiola Cristiano Ronaldo est devenu youtubeur gars youtubeur le 5 maa podcast mais en cinq heures de temps Cristiano Ronaldo a battu tous les records 5 millions d'abonnés gars le Cristiano Ronaldo am donc gars ah, quelques temps 29 000 a commencé on gars qui, millions d'abonnés il devient le plus grand youtubeur de l'histoire et gars en 5 heures de temps maximum Cristiano Ronaldo am lu ni mel Feno c'est phénoménal on va parler de Sadio Kaiser magnifique Mané mu don ko ay jamono jamono ñu naan ko Sadio Mané Cheikh Sadio Mané moom nag gars yi wax na day jóge Al Nassr Sadio Mané demul fenn day tok Al Nassr malgré les propositions parce que Sadio amone effectivement ay propositions mais moom ak entourage am ñoo gis si dañuy toog ndax Benfica ñëw na mais aussi Chelsea ñëw na mais ñoom daal dañu jàpp ne projet boobu intéressé wu te Chelsea Sadio Mané dafa jàpp ne Chelsea mënu ko fay mais aussi bokkul ci plan am propre situation bi Chelsea defoon ay démarches sax selon donc les informations pour daal di koy recruter mais dem de même que Marseille aussi approché nañu Sadio Mané pour mu daal di fay ñëw également ne déet moo ngoo ah, donc qui nag di Benfica wax naa leen ñëw na ba avancé ci mais dañu jàpp ne wéru moyen de même que Besiktas donc bi yoroon bëggoon yow Sadio Mané donc moo nekkoon loolu gars yi lii moo nekkoon information yi jox donc comme je dis encore même fois Wélène Dinaag Wélène Abril tout à l'heure aussi on va vous faire la vidéo sur toute l'histoire de Amara Diouf ndax kii di Mary Touré genn wax ci indi ci ce sera toujours sur Baba Show de ñaan ngeen gën a ñu ci chaîne bi gën ko agrandir comme ni ñu ko defee eSport TV mais aussi du ñak ne eSport TV nañ fay def ay vidéo TikTok bi également eSport TV 1 la Instagram eSport Inter su baaxee ci yéen a ñu la gay jangene